ñuy dem démb gis ngeen panderi moo taxit pandari jaar na fi wax li nga xam ne moom mooy euh, Yaya Jammeh ni mu nekkee Yaya Jammeh ngay wër panderi moom ak géwélam ak euh, garde rapprochée ñu dem ba Banjul la Yaya Jammeh diggee ca place de l'Indépendance bu Banjul moom lañ leen fas yéene indil Yaya Jammeh is back Gambia people Banjul people choléra nga ne buuru Banjul. soo buuru Banjul ñëw na jug leen buuru Banjul ñëw na. buuru Banjul ñëw na jug buuru Banjul ñëw na. doy na doy na waay. a soo waxee buur ñëw la loo loo di way neexul. sapelpise kambages yow xanaa naanoo nen sa baat bu naxare bi nga wayel mu ne aca hey foo ko yiyee fan nga ko yiyee waaye suma maam boo buur ñoo nga taga buur Yaya Jammeh cucu na kusuli Jammeh because sisa pes sisa ana sambaane ana mbaane léegi mbaxana bu weex ana sa mbaxana képp si bak lay tëni ana mu. eh président ah, ma toppandoo danga ma doon te deew ma hey si stop si sa lebin please hey lebin tix taxawal. président fo eh, eh, eh, bi ma wax ba pare bu neexulee dina naqari léegi bu neexulee. dina na xari xaaral ma waxaat nit ñi na ngeen pandari li muy war di yaxa sama der bi laa bëgg mu jeex parce que du ma nekk ci dëkk bi because mm-hmm. di doxal dëkk bi mu daw dem bitim réew di yaxa sama der loolu du ma koo nangu parce que nit da nga bu fekkee li ngay wax wóolu nga sa bopp doo yaxa der mm-hmm. da nga li ma tuddee yëpp li ma wax yëpp xam naa ko waaye moom bu fekkee ne moom bu fekkee ne dafa nekk ci daka jàmbur di yaa suma def da war a def ci daka bi nga xam ne moom la juddoo bu fekkee ne moom ndamba wan la kuma ko jàppal mm. maa la amal xaru tabaski maa la amal sa doom bu dee mag la sa doom dina dugal ci gouvernement bi bu dee jigeen la dinaa la japale parce que Pandari jàpp naa ko rek mooy xam na fi mu war a jëm lu mu wax si daa dëkk bi maa ngi koy di yaa suma der géwal bi nga xam ne moo naka suma géwal suma njaboot moom xam na sumay maam man sumay maam amul benn tapet li ma dama ko dona man si cosaan bu ma nekkul woon buur dama nekka président kon li ma nekka moo ko dogal dafa nekk suma deret naka si suma zaahir suma baatin waaye suma maami ñu xam ko maamaay kan Souleymane Jammeh Mansour hey hey na neex na neex hey bu leen tatu ah. bàyyi leen ba mu neex sa baa bi dal président man maay kan yéyé hey man maay kan waaw eh eh. shh i k'o sisi tapitali kamba do sisi bukutuma dega saba denga wala yaa ci wóor jami eh yow lañu bëgg jami loo leen di xaar putatu yaa ngi jiitaroo jami eh yow lañuy wër jami eh yeya jojo eh président eh fo ja da ko neexal bu na man maay ki nga xam ne kenn du yeb li yàlla wax loola doxal lu tubaab wax du ma ko doxal suma ma nekkee su daka da ngay wax da ngay def li ma bëgg munoo ko nga génn daka bi waaye génn daka bi tee di ko talal di ko talal ba mu def loolu tapet moo ko def pandeer yi ku ma ko jàppal maa la jàppale ba nga xam ne jame jàppale la man li may wax ni di si yeneen daka yi du ma ko toppatoo waaye bu fekkee góor la na teg tànkam Banjul mu wax mu wax mu waxoon ndax dunda war a du dunda hey maay kan yow bu ma jaxase yàlla ki fi gën fan ci Gambe wara ci àddina ci àddina jame hey yaay buuru Gambia yaay dëgg la yow la ñu yàgg yaay def Gambi lu def président la laa liggéey yaa tabaxee te jame kan mooy maçon Eh, kan mooy maçon ba moo tabax maa joxe ñu tabax. yaa joxe eh. Eh. avion yi yaya jàmme. bato yaya jàmme. autoroute à péage yaya jàmme. bu ma wax loo xam ne amul autoroute à péage fa lu ma neex dina tax lu ma def. waxaluma. immeuble gratte-ciel Jami. hey hey foo dafa am loo xam ne moo am bul ma wax loo xam ne amul yàlla bugul ku fen loo fen. terrasse Jami. Ah, waaw bu baax Jami. ray Jami. wala nga gisee oto ray laa wax ni danga ma tuumal wala danga ma wala. waa suma maam lu ñu liggéey man maay kan. si soose si soose laa bëgg nga wax ko ak ci joola ibana fronde o jame ni ko nan konde ko lo jame ana tawri anta kula nama jame ana ko hélicoptère jame ana wike bateau jame eh de ko aj di ko wàcce di ko def kon Youssou Ndour di ma ko defee loo ko yuuxal ci kaw bateau jame Jammeh. Hey, stop this, please. Tu, kuna tuwito kana Jammeh. The king hey. of the king Jammeh. Yes. best president. Yes. Wey do I to hey, fight. Hey, hey. Lu ma liggéey. Waaw ko, lu ma liggéey Gambie. Xamoo liggéey Gambie. tere football jami. ak lan. stade jami. ak lan. hey ak lan. sañse jami. loolu du liggéey. hey di ko si suñu pàcc lan laa liggéey Gambie. Eh, waal président. hey. clando jami. waal. hey stop it please lan liggéey Gambie. sécurité Gambie. ah yes. ministère of defence Gambie. Ah. na neex na neex. mécanicien Gambie. kan mooy mécanicien. kan kan mooy mécanicien. hey si back with please kan mooy mécanicien. driver yes. Ah. hey. Eh. na neex na neex na neex na aju ca kaw na yu na dem ah